ba tey su ko defee rek mbokk jullit yi nga xamante ni yéenay topp Salam Vision Events wax dëgg yàlla ñu aman mbégte dellusiwaat tey fii ci fi nga xamante ni mooy Pikine Lansar jàpp ay numan ci jumaa ji nga xamante ni mooy jumaay Mawridu Samaan jumaa ji nag suñu borom dogal ñu fekkee ci bi ñuy teg xeer wu njëkk wa mu jóge ci loxoy ki nga xam ne moo doon Serigne Mountakha Mbacké mu Cheikhul Khadim jamono di dox ba tey jii mu mel nii mu mel te am na ci lu bëri lool fekkee na nu ko ci suñu jëmm yu ñàkk solo yi moo tax dañuy sawar saa su ne di fi dellu siwaat di fi taataan siwaat ndax xam nañ ni yëfi suñu borom la te mbir mi te néegu yàlla la kenn ci njaboot gi nga xamante ne bokk nañ ci biir jumaa ji mu ngi nii di suñu kilifa di sunu xalifa waaye itam di suñu sunu sunu jëwriñ ñu gën ko xam sëñ Kànj ñu bëggoon taataan ci moom ay kàddu mu néew mu bëri dëppoo ak bés bi nga xam ne mooy bésu gan ak juddu yonent bu tëdd bi alayhi salaatu wasalaam tax tey ji ñu daje fi fanaane nii ci biir jumaa ji kon sëñ ñi ngi lay nuyu di la baax a baax waaye di dalal itam ci biir jotaay bi ci bésu gàmm gi tey ji waaw ñu ngi sant bu baax a baax a baax ci teewaay bi ñaan yàlla ñu fekkewaat ko ay déwén déwén waaw ñu sant ñu ngi sant bu baax yàlla doon ñu xéewal ak ak wér sa ci barke borom guddi gi barke Muhammad Rasulullah sax ay at ñu ngi koy def yàlla ñu ko fekkewaat ay déwén déwén yàlla doon ñu xéewal doon ñu xutoo ci barke Muhammad Rasulullah sax na yàlla def naataange ak wér ak wér léegi wér sa wér sa yàlla faj aajo yëpp ci daraje Muhammad Rasulullah mu mel ni mu mel ni fan yi coow bëri na ci dëkk bi ndax bu ñu xoolee président France bi doon wax waxam ju ñàkk solo ju tegginewul jooju noonu jëmale ko ci sang bi nga xam ne tey jii ku wër àdduna wër Sénégal wër Afrique gis ni ñu taxawalee bésam bii nii ci jaamu yàlla ci jàng alxuraan ci joxe ay ñam ci joxe ay bernde yéen ban gis-gis ngeen ci am ak ban yëg-yëg ngeen ci am tey jii. moom de xam naa dafa daa réer rek. dafa mhm. <laughs> gën gën a réer te dina gën a réer bu baax ba. Mhm. ndax yonent bi bokkul kenn kenn kenn kenn kenn. te dana ko gis bu soob yàlla. ñu naan lépp lu mu euh, jëf ci yonent bi ci lu bon yàlla delloo ko te dina ko gis bu soobee yàlla mu mel itam ñi ngi gis bu baax a baax euh, euh, jumaa néegu yàlla yi daanaka mbooloo mi dañ ciy nekk diñ ciy jaamu yàlla ni ñu ci war a jaamu yàlla waaye dañu gis ci biir jumaa ji plus particulièrement mu am benn organisation bu mucc ayib boo xamante ni moo fi am lan moo sabab lool ak ñan ñooy ñi ngànk liggéey boobu tey ba liggéey boobu mel ni mu mel ba jumaa ji tey ji mën a mel ni mu mel daanaka loolu daal moo daanaka organisation jumaa ji la nekk lépp lu mel nag ñu ngi sant yàlla bu baax a baax a baax ñu ngi sant orgi julli sax julli gi sax dañ koy organisé waaw ah, waaw toogaay bi dañ koy organisé bi mhm. dañ koy organisé julli lépp dañuy mhm. ñu ngi ñaan yàlla daal dool ñu kattan dool ñu taxawaay ñu gën ko mën nag ñu nekkaat ay déwén déwén rek waaw sant nañ bu baax a baax lan mooy doon kaddu yu mujj ak li nga xam ne moom yaa ngi koy yóbbante askanu Sénégal rawatina mbokk jullit ji tey ñu dellu tub te te jégalu te sant rek sant sañ bu baax a baax a baax a baax sant sañ bu ñaan yàlla mbas mii fi jóge ñu nekk tey dem dem na bu yàgg dana gën a dem waaw yàlla indi fi xéewal ak wér ak wér lay wër si ak naataange fan gudd ak wér ak aaj bi fajo ngir bu jub jërëjëf sëñ moom suñu jëwriñ la suñu njaatige la waaye suñu kilifa yi tamit moo tax dégg ngeen ko bi ma koy laaj ci wàllu organisation bi moom mii mu yoroon organisation bi fi mu ne wax dëgg yàlla kon buñ ko laajee loolu moom lim ci leeral itam am na solo waaye damay gis sama sama sama sama xalifa di di di di sama rakk waaye di sama imam ndax euh, wax dëgg yàlla ñoom ñi seen waajur yi ñooñu ñooñu taataan jàngal ñu ndax suma ma fàttali ko alaaji Njogu Fall ak alaaji Fàllu Fall man seen kër daaw ma fa jóg bokk na ci sa waajur wu góor daf ma daan wax ne ma kaay jàngal gone yi li nga xam ci français gone yi jàngal li ñu xam ci arab kon yow ñu ngi lay nuyu di la ziar waaye di la dalalaat ci biir Salam Vision bésu tey bii ak fi jamono toll ban yëg-yëg ngeen ci am ak naka ngeen dundee guddik Seydina Muhammad gi muy guddi gàmm gi tey waaw ñu ngi nuyu mbokk yëpp ñuy seetaan di nuyu képp ku ñuy déglu képp seen kàddu àgg rek wala jëmm ji ñu ngi kii yow moom wax dëgg yàlla seen mag ju baax a baax nga wax dëgg yàlla danga ko yàgg nga ñëw teete te it lépp loo xam ne lu baax la wala lu kii yàgg ñu ngi ko digal di wax ne rek bés moom naako ko daatoloog borom naa ko ku toll ne Muhammad moom sallallahu taala alayhi wa moom moom bisam rek wéy na turam naa ko xanaa rek nekk ci jàng xasaayid yeeg xasaayid Sëñ Tuubaa yi ak wàcce wàcce ay kaamil yi macha allah te it naa ni comme niñ ko yàgg a dund rek at bu ne nii lañ koy defee def ay bernde def ay meew café daanaka dara manqué wul wax dëgg yàlla moom bés bisu bésu moom naa ko dara nga ko sëñ mag bi daan dundalee rek. noonu lañ koy taxawee. ndax sëñ mag moom bu njëkk moom bernde yi moo ko daan defal boppam. moo daan top kuréel yi fu ne mooy attaayal boppam. di séddale kafe gi defal lépp boppam. daan ñu wax ne sax daanaka lépp lu daan bëgg ci moom bu bésu gàmm jotee ñu ci ëpp ñu ci ëpp ci lañ daan profité. ndax booba jamono danaan danaan ubbi génn naa ko lépp mu koy defal boppam wax dëgg yàlla moom suñ ko royee ci moom rek naa ko liñ def dañ koy xeeb waaye nag di ñaan yàlla yàlla defal ñu ci barke gàmm gi mbas mi nekk fi yàlla jële ko fi ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam te yàlla fekk ñu ko at yu bare bëri naa ko santañ bu baax baax mu mel ni fi mu ne ñi ngi gis wax dëgg yàlla lu mel ni eh, réew mi président France bi eh, wax yu ñàkk teggi ni yi nga xam ne génnee na ko wax ko eh, mu jëm ci sang bu tedd bi te buñ ko xoolee tey jii li wër Sénégal li wër Afrique li wër Ndakaaru dañ doon wax bu njëkk gàmmu Tijaan yee ko moom ak nangam nangam waaye tey ji boo xoolee murid yi xaadar yi laayeen yi ba ci yéefar yi ñi ngi màggal yonent bi kon tey jii moom moomee tey jii nekk président France boo xam du am ak ban yëg nga ci am naa ko eh, ku mel ne eh, président Macron naa ko wax dëgg yàlla moom daanaka sax tontu ko jaru ko ndax yeneen yeneen bi moom ku ku naa ko depuis depuis mu gën a jamono ba léegi daanaka attaques yi moom mos a waaye nag yàlla li yàlla waxoon rek alxuraan ñëwoon na képp yeneen bi maa koy aral maa koy aral sama bopp képp ku dal ci ci képp kuy jéem a dal ci kawam. naa ko man maa koy fegal naa ko wax dëgg yàlla moom moom day yàgg rek may dina gis lépp lu muy def ah moo xam Macron la moo xam ku mën di doon képp ku dal ci kaw yeneen bi yeneen bi aar nañ ko ba noppi naa ko di ñaawlu kàddu yi bu baax a baax rek wax dëgg yàlla moom Macron ak ku mu mën di doon yeneen bi nekkul foofu kaay nekkul koo xam ne ni dañ koy dañ koy këll këllee wala ñu koy kii ndax lu yàlla. waxoon ci alxuraan rek nee na allazina amanu wa amilu salihat tuuba lahum wa naa ko loolu rek doy na doy na na kii naa ko di santaat rek bu baax a baax jërë ngeen jëf kontaan nañ bu baax Paalu ñu ngi lay nuyu waaw ñu ngi leen di fay bu baax a baax bésu gàmmu bi ñu gis ne organisation bi lépp rafet na lépp mucc na lépp aw na ci yoon naka la demee ak naka ngeen ko taxawoo waaw jumaa ji moom xam rek comme d'habitude ni koy waxee rek waaw yàlla dafa dogal ne li moom konte tàmm nañ ko du doon loo xamante ne daf ñuy jaaxal parce que tamit euh, eur bu ñu ñëwee rek tout tànk yi dañ ciy jàpp ñu nekk ci jumaa ñëpp dañ ciy jàpp dangay gis ñuy julli si sax ñëw gis ñuy liggéey ñu jàpp ci te yàlla rek tax waaw jumaa ji moom daf fekk ne daf fekk ne ñëpp a ko bokk rek ku ñëw rek ci nga bokk ñëpp ko moom du jumaa yi kenn ñëpp a ko bokk waaw loolu daal moo tax euh, lépp day xéwale daal taw féex rek léegi su ma la su ma la laajee ne la fi mu ne euh, Macron tey bu ñu gisee kàddu yu ñàkk tëggin yi mu nga xam ne génnee na ko jëmale ko ci borom bésu tey bi ñu gis borom bésu tey bi tey adduna wërngal këpp fépp foo tourné nit ñaa ngi ko baas ñi ngi ko tant ñi ngi ñi ngi sàbbaal ñi ngi màggal bésam bi yow tey ban jàngat nga ca mag ban gis-gis nga ca am. waaw Macron ñàkk a xam rek parce que moom buñ ko bindee Seydina Mouhamed moo tax fu ñu bind moo tax lii rek day firndeel ne daanaka. jarul wax jarul coow coow lu bari. parce que li ko jullit di jot a def rek ak ñi ci gars yi jot a rek doy na sëkk. waaw parce que ku ñu bind moo tax moom ñi nekk ci moom ñu bokk ci moom sax xam nga ku nar a alku rek daanaka nu ne ngay waxee waaw loolu rek ko ko waral. waaw loolu rek ko ko waral parce que lii li rek doy na finde mm-hmm. bu ñu wàccee ci jamono Seydina Mouhamed moo tax waaw loolu daal. waaw doy na waaw <laughs> tubaarkàlla waaw jaajëfal ko ndax moom mi ngi bëgg a yéeg ci tolluwaay waaye duñ ci duñ ci tegaat dara ni ngeen ko gisee rek ni lañ day wàccee suñu kàddu wax leen ne leen Salam Vision Events moo jógoon tey ci bés bi nga xamante ni mooy bésu gàmm gi gis ngeen ko ci gox yu fasantikoo yoo xam ne suñu ndaw yaa nga fa kenn ku nekk nekkal fa Salam Vision te dara sababu ko dara waralu ko dul taataan bés bi nga xamante ni mooy bésu gane juddu yonent bu tedd bi Seydunaa Muhammad alayhi salaatu wasalaam ni ñu ko dundee kon sant ak ngërëm la ñuy daal di def téléspectateurs yi nga xam ne ñoo taamu Salam Vision di leen wax ne li ci des nag dañ koy bàyyi ak ay image ak i xasaay ak i waxtaan mu wéyal programme bi ba bër set ñu yeexal bër set incha allahu rabbi dig daje déwén ak jàmm ci kàttanu suñu borom yàlla nañu ko teewee ci dara ji yoon ci yàlla Muhammad alayhi salaatu wasalaam barkeb mag ñu baax ñi jërë ngeen jëf salaam